فقنيت اليوم عبدا بذكري واني اكوفنا او النار وسبا نبس لقى لله عبدا مرتلا لذكر حكيم عن جناب الهدى سربا ارتل ما دمت حيا واكتفي جاهي وهو مؤمن وواسع له الملك ثم الحمد والآل قد سبا خرجت بفضل الله من كل باطل وفارق تدبيري به دفع والجلبا رديت به ربا كريما مكرما وقال الهدى والخلف والبار والتلبى جزائي على المولى بلا jigéen ah. dama ne trop jigéen suru ah. mi ngi fii ci EDK bi dama ne ah. waa Mbacke ñoo ko doon tooy naan résident yëpp am na fi waaye jolof jigéen roy du noo pire roy du noo pire man tuun bidik woon Mbacke Bawol suba nag ñu ngi war a def karawaan bu mag foofu ci Touba Mbacke ba Touba Mbacke dëkkub Seexul Xadim ci Ahmadu Bamba Xaadimu Rasuul ci anam bu mucc ayib tubaarikàlla lépp rek li ko waral présenté leen tubaarikàlla li nga xam ni euh, dëggal daan ko dégg ci région yi daan ko seetaan ci télé yi yàlla dogal ñu di ko Bawol muy jolof ci kër muy poulet pané boo xam ni lu am importance la lu am solo la loo xam ni baax na ci wér-gu-yaram trop tubaarikàlla macha allah. restaurant bi mi foofu mi ngi woon foofu ci xayra waaye nag euh, tabaarikàlla dana ko tuxal yóbbu ko ci RDK bi nga xam ni moo nekk ci route national bi nee naa la boo dikkee ba ci héliport bi romb héliport romb garage bees bi jëm yàgg maa nga jëm Bovene di nga gis ODECA tubaarikàlla boo demee di nga dugg ci biir restaurant bi fekk fa jëloon ci kenn ah. suba Touba la incha allahu rabi ci kàttu yàlla nanu ko préparé waa suba la ko xaar suba ci kàttu fii te kenn du jëloon fii kee réew di dina fiir eh réew di dina fiir rek te kenn du jëloon koy fiir kooku moo lay jaay loo xam ne si dañ koy lekk di am vitamine kooku mooy jëloon tike ni moom la jógee tuuti indi fi nga xamante ni mooy Mbàkke laa ilaaha illallah dama ne bu leen ko taayee seeti jolof ci li ma gën a neex lu guddi guddi guddi guddi guddi boo demee da nga am reer bu baax te ginaar yu yëpp tàq lan lay jaay man si jolof ci la mos a gisee bu jàppum nen roof ko ak i gingeer dugal ko ci biir ginaar gi jolof ci rek la am amul feneen yéen ñi nga xamante ni da ngeen di jàngale dee leen seeti jolof ci gën yéen ñiy jàngale élèves yi dama leen seeti jolof ci gën jolof ci gën mi ngi fii ci Mbàkke waaw comme ni ma ko baaxoo waxee nee naa leen Djolof Chicken dem na fépp toj ko fu mu jaar rek ñu ne Djolof Chicken moo fi man waaye nag Djolof Chicken xam na xel ni su bëggee ay mbiram gën a dox naka doy tam gën a jëm ca kanam foog waa Mbacke boobal di ci seen bopp waa Mbacke yàgg koo réclamé Djolof Chicken nag daal ne léegi jot na Mbacke boobal gis seen bopp ci Djolof Chicken moo tax bi nekk xayra ñu andi ko mu gën leen a jege rek fii ci ADK bi nekk tur national bi kon yéen waa Mbacke Bawal Jolof ci gën mi ngi noonu ànd leen ak seen famille réception mariage ak lu leen mën a def événement bu mënti doon ngeen dem fay rek foofu la ci Jolof ci gën indi na leen salle yoo xam ni salle yu yanj macha allah décoré ko seen i anniversaire lépp mën ngeen ko faa def ah borom jagataay vraiment vous êtes magnifique ay ndaw yu daal dool di liggéey waaw leen buur Jolof ci gën mi ngi noonu su ngeen liggéey ba wàcc. dem leen ngeen dem te jël ci gën lekk ginaar yu neex yi ginaar yu nooy yi ginaar yu sedd yi ci njëg yu xéewale ànd leen ak njaboot gi dem jolof ci gën mi ngi fii ci EDK bi ci route nationale bi wax dëgg yàlla mbégte la képp koo xam ni mi ngi ci diwaanu Mbacke Babal bi nga déggee ni jolof ci gën ñëw na Mbacke sa xol sedd na guy ndax taxawaay bu am solo bi nga xam ni am na ko ci réewu Sénégal jolof ci gën fu mu jaar région bu mu mën ci doon ñu ni alhamdulilah ci suñu gox waaye nag tey bawal moo aaye bawal moo xewle joloti gën biir bawal ADK bi nekk ci route nationale bi kon na fa ñëpp dem vraiment c'est magnifique. lay lay la nee naa leen. jolof jëkkër ñëw na. yéen a ko doon xaar gis ngeen fi yéen a waaye jolof na. tam ni daan ngeen fa dem mu nekk biir Touba te ñu tuxal ko yo yóbbu ko ci ODK bi nga xam ni tabaarkalla moo nekk ci national xam ne fii maa ngi leen di fii seen daan naa leen daan naa leen seen ci Jolof ci gën bi nekk xayra bëri na gaa a xam ne seen naa leen fay yoon yoon te gaa yi dafa bëgg Jolof ndax xam naa ko Jolof dem na ko Jolof dem leen seeti